ñu yokk ñaan rek di ñaanal mbooloo mi di ñaanal tund bi di ñaanal dëkk bi yal na fi yàlla def jàmm mbooloo mi yal na ko yàlla yokk yal na am barke aussi daraja rasul bon li ma ci mën a wax rek mooy wax dëgg yàlla ñun aussi ay kilifa lañ kontaan nañ ci seen taxawaay bi surtout yéen séeréer yi su ngeen ay def seen jaam ñëw bon yéen yëpp ngeen war ci sant yàlla parce que joolaa boobu seen jaam la baji am su loolu passé comme ni ko xale yi waxee man li ma gëm mooy garab yi waru leen ko bàyyi mu nax saay comme ne leen ku ne danañ la ne garab bi yaa ko moom nga toppatoo fexe leen kuñ ci jox garab nga toppatoo mais non seulement bul seet neexal bi ci war a ñëw sax waaye seetal avenir suba loolu ngeen war a def te fii nii wax dëggu yàlla soo demee ca bu njëkk ba kilifa yi dañ ko doon liggéey ba mu set léegi nag yéen yéen a fi sës fii kenn dootu ko defar yéen a koy defar te gëm leen ne yéen a war a defar dëkk bi su ngeen gëmee loolu rek du ngeen sonal kenn kenn du leen sonal nit loo nekk da nga ciy ne nit dangay am fula gis nga ab waxatuñu affaire yi mais politique la ñuy wax politique passé na mais politique la ñuy wax lépp lu ngeen ci nekk nekk leen ci waaw su ngeen jàppee nit ñi dimbale leen man day mënuma and ak ko xamanteni day jàpp di bay di di ni man luma japp rek loolu la japp duma waxtu nak duma tok di wax ne diw lii diw la len nangam nang, dede lepp lu ma luma lu ma rek japp nako, lepp luma lu ma mënu ci dugal kon nak yeen itam da ngeen ay xam ngeen ne ñi ñew fi seeni morom lañ mënon nañ ko def ci seen dekk yi lii mënoon nañ ko def ci seen dëkk yi mais comme seen sance la dimbale leen seen bopp defar leen ko ñun ñëpp ñu jëriñoo ci parce que lii nii garab bu ci ne am na lu muy faj am na lu muy def ci doomu aadama loolu tant que dundul du mën a sotti da ngeen fexe mu dund sa ñu ngi leen nay sant yéen ñi nga xamante ne yéen a jógee ci dëkk yi ñëw fii ñu ngi leen ay sant ñu ngi leen ay gërëm ngeen xam ne dëkk bi kilifa dëkk bi sawar nañ ci seen taxawaay bi seen teewaay bi fii ñun sawar nañ ci trop yal na leen yàlla fay lépp lu ngeen ay yëngatu te mu nekk loo xamante ne dinañu jig jig yal na yomb lépp lu ngeen bugg ci tund bi ak ci dëkk yi te muy baax ci nit ñi baax ci xale yëpp yal na ko yàlla yombal jërë ngeen jëf jërë jëf wax dëggu yàlla kontaan nañ loolu daal laa am lu ma doon wax merci. bisimilah salaamaaleykum yéen ñëpp maa ngi leen a nuyu di leen ay ziar d'abord di jaajëfal suñu ñoom dëkk ak suñu imam notable yi nga xam ne teew nañu am mbégte loolu nag

parce que am garab boo xam ne dalay teral ngay amaale ci doom yi aussi da caa gën naa ne sama joolaa bi du ma bàyyi la verte Casamance soo gisee suñ différence ak Casamance dama mm. loolu la fii autant bari ay acacia xotti butel ay xay yooyu tubaab bi moo ko fi bàyyi wax à chaque fois nag dama naan tubaab bi lum ñu bàyyeel rek am na njëriñ jaan mais la mu yàqal soo xoolee verte Casamance moom biir kër yëpp mm. ay arbre fruitier

nga woote boo yëpp ñëw teew au nom de leur maa ngi leen ciy naan leen ndaw moo mën a defar dëkkam comme ni ko président jeunesse expo waxee président dafa woote liggéey ñu nekkoo nag jub jubal jubal ñun ñoo ci ay jiitu nit ki nag nga naan maa fi toogal diw day fekk diw boobu est-ce que image ba muy reflété message ba muy véhiculé est-ce que yow sa bopp yaa ngi koy dund parce que su ne maa fi toogal diw maay fekk juboo

xaale gëm naa nag ne man bokk naa ci mujjee dugg Pastef commune Diosso mais gëm naa ne lim ñëwaguñ jafe dema ko ci benn dëkk ma ciy gërëm moom bu baax a baax c'est la troisième fois la quatrième parce que aussi nit lii la am nga xew li activité citoyenne say nit ñëw ma ciy gërëm papa di gërëm le coordonnateur Ousmane Keb moom nag ma koy bëral gërëm Ousmane mi mu doon une personne spéciale sincèrement nit ko oyof amaana sama tempérament suma ma ci topol ak yenn wax yi ci suuf jàppante la bu yàgg mais sincèrement nit ku dal la nit ku compréhensible la modérateur nag ci Pastef yépp man dama na le stratège ne ko mom moy jimma mat à chaque fois mom moy né entre les deux feux su né nak entre les deux feux c'est entre Guillaume mais à chaque fois mom moy né entre les deux Ousmane Day wax dal Mohamed wax tangal. mais à chaque fois moy momay maay man né ma te wax dëgg yàlla aussi maa ngi ko ciy sant di ko ciy gërëm en tout cas naa leen jëmbat garab baax na mais suivi bi mu ëpp solo ba na garab yi garab bu nekk dinañ ko jox un pare naan fi ak un an deux ans parce que garab bi ñu taxaw fii suñu nijaay yeeg ñoo ko fi sampoon maa ko baax ñi nii ñu ngi ciy keroog day am doom ba tax na it avant ñuy dem ci fi sampoon garab bi wax dëgg yàlla xaw ma ñun dinañ yëkk di lu gàtt gàtt benn dix mille francs ak benn mbuusu tàngal neexalee ko

di kilifan yi nga xam ne teew nañ fii yëpp turandoo ngi leen nuyu bu baax koor euh, di wax rek que ni journée bii journée bu am solo ci Pastef mais journée bu am solo aussi ci réew mi ndaxte dafa am loo xamante ni Pastef da ko daan doxe tey nag changé na doxalin bi ñu jëlee réew mi ndax xaj na li ñu tàmmoon di gis mooy boo gañewaan réew mi ba pare xañ na doonoon wàcc ci ci askan bi mukk di dem di leen indil benn proposition boo xam ne dañ naan lii c'est des actes yoo xam ne c'est pour le développement surtout dans le long donc bu Pastef fu wéyee di am bii taxawaay ñun dañ koy sant yàlla di wax ne choix yi aussi des fois mu xaw a difficile ndax sànq bi may génn keppe dafa sax na suma dab na foo jëm ma ne ko dañuy dem njafe am du fay yóbbu mu ne ma waa yéen seen journée yi moom du ngeen ko indi keppe <laughs> ma ne ko da ngeen am nattu nag coordonnateur dëkk ñu ngi yëkkati mbir

Aliou wax na ko léegi samp bi am na solo mais li ci ëpp solo te defe naa ne jeunesse bi moo ko yor jeunesse boobu nag faw ñu mën a décoder message du président Ousmane euh, président Diomaye message bi lu tax mu indil leen garab yi mooy que bu ko neexoon du leen ci dugal mais développement réew mi yéen jeunes yi nga xam ne yéen a ko fal mënu leen ci génn donc da ngeen di xam ne yéen a koy accompagner ci loolu. ñu bañ a toog rek na fal nañ leen nañu liggéey wala li jim wax léegi aussi bañ nit ñi di jaar ci ginnaaw di wax yoo xamante ni taxawul président Ousmane Sonko di président Diomaye li leen teye nelaw mooy Sénégal wax dëgg yàlla moo leen teye nelaw donc nag ñun loolu mënuñ leen ci seetal ndax bu ñu leen neexoon ba ñu leen falee keral ñu dem toogaat jàpp suñu jàmbur mais loolu duñ ci dugg dinañu leen accompagner ci suñu mënin dinañ leen accompagner suñu doole dinañ leen accompagner suñu xam-xam indi tey suñu présence tey indi garab indi ko jafe mm. mais nag balaa ñuy gën a kontaan garab yi ñu ñëwaat fii ñu ne garab yaa ngi dëgg di màgg loolu nag ci loxo ndaw ñi képp la mën na nekk beneen bi su weesoo nee nañ bu journée politique mais occasion la aussi ñu yóot yëkkati suñuy message mm-hmm. parce que yàlla dafa def dañ daan dem ci askan bi naan leen lii mooy la projet Pastef mm-hmm. tey bari na fuñ ci dem dinañ jàpp suñu nopp bu ñu jàppee sama nopp nag dinaa jàpp nopp Pape yàlla loolu la dogal tey dama naan ma doon am maître ci politique mën naa ne Pape Alé mm-hmm. donc Pastef est au pouvoir fu moy gérer Sénégal doléance commune Diossong fu mu tégué ci sama loxo mënul dem fenen fu ci yow parce que yow la xam yow la gis dem te du tay nak moy am changement donc xamal ni dina la ñëw seet si ñu ma wax dina la ko indil te loo ci def nag sama sag la man fii ci commune Diossong hmm. parce que nee naa la bëgguma fi dara lu dul li ma askan bi doon wax muy seen coono muy seen jafe-jafe su ma la ko indilee mu am saafara lii daal wax dëgg yàlla moo doon message yoo xam ne bëggoon naa ko ci lancé hmm. nga xamante ni ci journée bi profité ci aussi lancé la message yi Fabale hmm. nga bàyyi xel la commune de Diossong ndaxte ñu nit fi lay ñu dëkk dem nañu fi fu ne expliquer projet bi nit ñu dégg ko jàppale ñu ba élection présidentielle ñu gañe fi réalisation joxe bu liggéey jotee Diosone aussi dina ci wane boppam Diosone aussi dina ci laaj wàllam ci laaj cër. donc njafe gii ñu ñëw doléance yi bari woon nañ fi. Mm-hmm. xaj na am na projet yoo xam ne mu ngi en cours. dañ ci sant yàlla di ñaan yàlla yeggali ko mu ngi jëm ci wàllu électricité yi ndax dëkk yi yëpp dafa amoon problème boobu. Mm-hmm. ba foo ci demande nit ñi loolu lañ leen wax.

waye nak c'est normal bour nak moy mujjé wax pour <laughs> tontu góor gi rek <laughs> voilà kon merci beaucoup di contane sama teewaay fi ci jafé jafé pour la énième fois waaw jittel ci nuyu bi borom dëkk beral nuyu également imam

Eh, ma teg ci kii di ji Momar cham mi nga xamne mom GPS la man na wax ne man mom mo moo fi fii ndaw yi Pastef ci département de Foundiougne donte mom moy responsable fi au niveau euh communal waye bu fi teewee mel na ne teewal na ndaw yi Pastef ci département bi yépp eh bu lolou wesso xëy na ma tudd ki nga xamne mom moy mooy Ndaa Bakhoum ci kuréel bi nga xamne mom moy mouvement des enseignants du Pastef nek vice coordinateur départemental

bo waxee Pastef rek ñu ngi xaar ci yow philosophie comportement manam doxalin am no xam ne noonu nga wara a lolu nak nag mënuñu koo yemale ci ben parti loolu melokaanu nit la ndax Pastef terme bi en tant que tel boko ko ci olof yaakar na mën nga koo génnee ci politique jox ko kenn ku nekk té kenn ku nekk bëgg naa doon nit ku am Pastef motax ma kon Pastef philosophie la comportement la fay dépasser cadre politique et cela dit lu ñu fi boole tey moom mooy woote bi nga xam président de la république Bassirou Diomaye Faye moo ko woote Bassirou Diomaye Faye daf ñu woo ci set setal waaye yamu ci mu boole ci deuxième axe muy reboisement mu war def lancement officiel bi fële ci Touba suba Inshallah, allah ñu toftal ci ab thème ñu tuddee ko le rôle du reboisement pour dans la souveraineté alimentaire et le développement économique yaakaar naa ki nga xam ne moom mooy yëngu ci wàllu garab wax na ko souveraineté alimentaire moy ñu mom suñu bop ci walum lu ñu dundé man mom xamna né illustration ndax garab mom ku wax jola wax garab et l'illustration moy ku xam sama kër fé ci Casamance xaw fi ci passé ñam yi dañuy fekkante fim na ni bo démé ci kër ga pamplemousse yi daaw yi ñu nga fa limon yi daaw yi ba bu ngi ci garab ga en tout cas ñam bo jël dañuy fekkante xalé yi koñ bi yëpp kër ga la foyé ndax ñam yi nañ kër ga dama am 40 sur 20 ma def ko yëpp garab soxna si day jàmbat ba sonn bale bi ba ne ko ah, lii de suñu natt la ñun joolaa yi dañu bëgg garab mais surtout garab bu am ñam ñun bëgguñu garab boo xam ne amul ñam il faut nga boole ñaar yi ker gi ak aussi nga jariñu ci moo tax en tant qu'enseignant dëkk yi nga xam ne foofu laa jot a jaar damay faral di jàmbat

au lieu que ngeen yem ci out ay garab yo xamné garab yo xamné pour kër rek la ngeen né cette fois ci nañu def garab yo xamné dina meñ lo xamné nit man na cee jëriñ et du coup man en tant que coordinateur bi may déplacer wu ñëw fii si ñafé ñafe indaale naa man aussi ñaari arc fruitier né ci auto bi ma fas yéene koo jëmbat fii ci école bi su ko defee ñu ne yii ñaari garab fruitier yi le coordinateur départemental moo ko fi def ma am yéene nag bu ma ñëwaatee fii ma mën cee witti ci li nga xam ne mooy meññ ci garab yooyu incha allah bu ñu yàlla mayee euh, gudd fan à l'autre aspect bi nga xam ne bëgg naa ko ci toftal mooy barab bi nga xam ne foofu lañ nekk muy école bi dafay nekk fierté en tant qu'éducateur parce que vous avez compris que le développement d'une nation passe nécessairement par la qualité de ses ressources humaines maanaam lui sur réew mu ngi dépend ci compétences dont yi nga xam ne ñoom ñoo jóge ci réew moom tey jii bu tudd Japon di wax technologie compétences ya ndaw japonais yi am la compétence nag duñ koy sol ci fenn fu dul ci école moo ta kon boo leen ñëwee fii dans un espace symbolique muy école fi nga xam ne foofu la ñuy tàggatee doomi aadama ngeen ne nañu def fii suñu activité muy set setal bi waaye buñ ci yem ñu def ci suñu reboisement c'est parce que vous avez compris que ne lepp loy def dang koy commencer ci base bi mooy ci xalé ba et français dinay faral di wax né un esprit sain dans un corps sain mais ñu mën ci toftal né mais également un corps sain dans un environnement sain l'environnement sain moy li ngeen bëgg di def ni xalé bi dafa wara évoluer ci cadre bo xamné ne wax dëgg yalla c'est attrayant dina am ker fo xamné bu génné récréation dina fa mëna a dugg mais également dina mëna am lo xamné mom moy mooy fi nga xamné mom moy mooy ci

te na li gën a tardel réew mi mooy nit ku bari xam-xam lool ba pare amul valeur kooku xam-xamam du njariñ askan bi malheureusement boppam dong lay jëriñ loolooy tax nga gis nit benn nit mu nekk milliardaire am suuf su dul jeex am xaalis bu dul jeex am kër yu dul jeex moom kese waaw ana loon ko waral mooy ñàkk valeur parce que moom xamul ne lii kat alal bi ma moom waaye alalu askan bi yëpp la dañ ko war a bokk motax tax Pastef bi mu ñëwé ak djub djubal djubanti je crois que kenn ku nekk war na ci gis boppam nga bokk ci Pastef nga ñak bokk ci Pastef Bon, waxé rek té yalla tax té bo dégloo discours bi ak message bi nga wara mëna xamné kat ñi li ñuy woote dépassé cadre politique ñi li ñuy woote njëriñu askan bi la motax la jeunesse appel bi ñu leen di lancer moy lepp loy def rek bul yaakaar dama koy defal Ousmane Kébé dama koy defal moo Lamine jaay lépp lu bépp ak boo posé rek jàppal ne sa bopp nga ko def parce que boo jëmbatee garab bi sa biir kër bu meññee Ousmane Sonko du ñëw witti ko Bassirou Diomaye du ñëw witti witti ko man it du ma jógee Passy ñëw witti ko yow mi fa dëkk yow yaa koy witti donc le premier bénéficiaire mooy yow la moo tax kon nit bu lay woo ci développement je crois que da war a sawar kooku woowu ñu la ci ñàkk fayda woowu la ci tayal kon yaa ci war a jiitu ndax olof dafay wax ne donte dégg ma Euh, dimbal na ci fekk loxol borom et je crois buñ ko comprendre noonu incha allah fi nga bëgg ñu bëgg a yóbbu réew mi dinañ fa yegg te gëm nañ ne Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye li ñu wax focus duñ ci jóge incha allah kon lii mooy message bi nga xam ne moom laa ci bëggoon a xaw naa dégg tuuti nag ndax kàllaama bi waaye yaakaar naa solo yi message bi ñëpp dégg nañ ko merci voilà. jox ko garab bi mu teel Mamadou. Ndiaye. soxna si kaay ñëwal parce que amul.